IMEC Amédi cosmétique botanique déco en or di yëngu ci ameublement ak décoration et it business groupement des agences pénitentiaires de Kaolack vous offre votre série Marie et Cher allo Fatim ça va mbaa dérangé wu la xanaa da nga doon nelaw ah tey liggéeyoo waaw fii nag temps yi xaw naa tàng tuuti mbaa sedd ah mu ngi sedd a ah, mais c'est normal. Hmm. mais yaa si jàmm quand fi nga ma waxoon de dem naa fa ba ñëw. Ah. yàlla def na ne nag fekk naa fa ay kilifa yu mat kilifa mm-hmm. papaam tamit nit ku baax la mm-hmm. dëgg yàlla bi ma àggee dalal na ma te xamal na ma ne tamit wax dëgg yàlla mbir mi su yàggee mm-hmm. mën na ne ci ñun la waaye du ci moom ah, ba tax na nee na daal bu sañoon dimanche bii di ñëw nii su ñëwee mu may ñu soxna dimanche bii ah, loolu de ah, loolu moom neex na loolu de wax dëgg non mari suñu doom ah dama ne mari sama doom mel ni maay baayam waa incha allah waaw xale màgg na ça fait combien de temps yow yow yow mari gisula la sept yaa ngi états si xam naa ki kay takk parce que fekk naa ko sama kër laaj naa lan mooy tànkam mu wax ma ko jiwuma xam leneen xam naa ne jullit la xam naa ne mu ngi daan dooleem bëggul ku ko yëpp ça me suffit eh, yàlla bindul kenn ak alal loolu lijjantiwuma ko. tamit seex ginnaaw bi ngay jógee dëkk ba dama laa indi fii nga nekk ak ameel ci biir kër gi. xam nga nekk kenn nit sax neexul waxuma laa nekk ñaari nit. bu ma sañoon nag boo takkee sa soxna ba noppi. nga ànd ak moom ñëw dëkk ba ngeen wéttali ma sax. looy wax nii ah mari ma yóbbu ko dëkk ba ah papa yow xool nga bu baax li ngay wax yow dëkk ba ñaari néeg fa nekk di papa. benn bi yaa ngi ci benn bi sama tàntaa ngi ci bu demee fan lay ne. Eh, eh, eh. man fa ma nekkoon ba léegi juguma fa kilifa laa sama kër dégg nga yow soxna nga mais boo nekkee ci biir kër gi. fekkee fu ñuy nase du ma la xaar wala ma lay rendre compte nga may jàppal dat bitim réew moo la gënal sa njaboot la ñoo ko bokk effectivement xam nga lan laa lay xamal lu tuuti te bëriwul lama la doon wax naan la kenn du ma yaakaar yëpp ma tey mën ngaa wax ne yaakaaratoo ma ndax yaa ngi am si loo jàpp. mais yàlla yàgg na ak jaamam njaboot gi ñoo leen bokk ba nga leen fi bàyyi ba léegi xiifun marun raflewun seer ba tey xel du doñ loolu yëpp bu mënta ñàkk mën ngaa wut luwaas yóbbu fa sa jabar nga nekk fa ak moom parce que xam naa ne yéen ñaar moom mënatu leen xejoo ci biir kër gi ah ku mënul indi fii tamit de dafa mel ni maag mari am na lu ñu doon jot a waxtaan ndax moom xëy na jàpp na ci loo xam ne ni dëgër na Uh-huh. te dafa ma doon wax ne bu yàlla dogalee euh, suma diggante ak moom euh, ñu maye ñu. Uh-huh. dana fexe xool nu mu jëlee appartement bu ko defee man ak moom ñu nekk fa ah! mu wutal la kër. Ah, waaw ñu nekk fa mu koy fay. ah dama comprendre loolu kay sa bàyyi sax bu ko amoon di wax dara kooku kay sant yàlla moom. kooku kay sant yàlla. loolu kay bu dee wax na ko. Ah. te mën na ko. Mm. loolu kay yal na yàlla sottal rek wax. man moom xam naa ne damaa bëgg a jóg léegi balaa horaire bi di ma raw. Ah. waaw dama bëgg a dellu dëkk ba. ah amul benn problème bàyyi ma ñëw dem rek. parce que xam naa ne bu ma demul gétt gaag yooyu duñ ma fatal dara. baadu <laughs> bu ma dellu baax na maa ngi ci biir. jërëjëf booy dem rek nga woo jërëjëf waaw xam naa ma noppalu tuuti rek. baax na jërëjëf ah, ba tension bi wàcc tuuti rek ma mën a woon ji ma. waaw jërëjëf Cheikh jërëjëf. Fatim dinaa maye mari après demain le dimanche su fekkee jaral na la.

sant yàlla bu baax. Mm-hmm. sa jëkkër yi kontaan nañ mbokk mi kontaan nañ sa yaay tamit mbokk mi yëpp ñëw nañ kontaan nañ ak nit ñi sa bàjjen sant yàlla bu baax ndax loolu rek dafa jafe xew say mbokk ñépp ñëw sagal la macha allah nga gën a góor góorlu nag fas moom lu mu daw daw du tee nga làbbali ko ndax sa yaay jàmbaar la ba mu duggee ci kër gi ba léegi mu sa tàngal sa xolu baay man mii sa bàjjen waxi noppi. tey jii bi fekkoon ñibbisi na macha allah man mii sa bàjje nit sama xol sedd na te yar biñ la yar yaakaar naa foo dem di nga ko continuer doom nag ndey jax sa yaay yaay ju baax la ba duggee ci kër gi ba léegi mos a gàddu ndamal fay bu neexee kenn xamul bu naqaree kenn xamul mu ngi toog fi mu toog ma bëggoon nag yow su la yàlla yóbboo nga gën a góor góorgóorlu téye sa jëkkër bul ut xarit but ut àndandoo nga doon sa jëkkër doon sa xarit doon sa papa doon sa lépp demal demal toogal bul insisté nga toog sëy du dara yaag sa jëkkër nekk leen benn rekk su ngeen nekkee benn bi leen xajal kenn seen diggante soxlatul sax ngay am xarit man mii sa bàjjan di sa xarit sax soxlaatu ko ndax moom mooy sa xarit li ma mën a wax yépp mën nga koo wax nga gën a góorgóorlu nag man daal loolu laa bëggoon te xam naa lii boo ko defee ah doo ko rëccu de loolu daal laa bëggoon nga téye sa jëkkër fukki loxook juróom bu la defee lu la naqari bul ñëw ci man ndax boo ñëwee ci man mii su ma la ko waxee su ma la ko waxul sama xol du neex keneen it noonu sa sutura it mën naa sàggeeku waaw bu la defee lu naqari nga bàyyi ba mu wàcc kaf ak moom bul mer bul rëy jigéen du rëy nga oo ko ba mu ñëw ne ko ah man de li ñu ma def démb su ma suñoon du demee noonu dama bëggoon ñuy doxalee nii ak nii nii góor góor la góor boo ko wax dootu ko defati su boobaa dina dégg ne la waaw nii walla naa seen sëy dina neex te du ngeen xiiroo du ngeen ŋaayoo kenn du leen xamal waaye tey lu mu la def tuuti rekk wala ngay indi tappaas rek dem ni ah diw de démb maa ngi moom nii ne leen suba yaa ngi marché te fekk ñu la gën a piir li ñu ngi yore seen bos man daal loolu laa bëggoon nga gën a góorgóorlu xool ci man mi sa bàjjen ak ci sa yaay te nag xam nga sa xariti papa nga te papa bëggalu la nag gën a góorgóorlu man daal loolu laa bëggoon dégg naa li nga wax bàjjen li nga wax yëpp dinaa ko def incha ah loolu da boo ko waxee dinaa ko gëm ndax yar bi ma woon fii ci kër gi ak jukka ju baax ji nga ma yor fii ci kër gi defe naa foo ko wane rek dinga fa mun a toog bu soobee yàlla yal na leen yàlla taxaw yàlla nay sëy benn ci aras yàlla nay benn sëy amiin may leen ci njaboot gu góor ak bi jigéen bu barke fu ma toog maa ngi leen di ñaan bu leen tiit dara maa ngi sa ginnaaw in Vegas. Forever, forever happen in Vegas. Eh? Forever, this day in Vegas. Madame Sylvie, félicitations. Merci. xaaral ma ong la. jërëjëf ongaate sax yow. déedéet ongaate rek. ii bàyyi ma ongaate. onga ñu ñun ñëpp te taxul nga am jëkkër. yow damaa wax ak yow yow génn ci sama. mun ngaa génn ci yow. lépp dundee nii yow. maa ngi kontaan. Cheikh. ab seex kontaan naa bu baax a baax. jërëjëf waaye seex ump la fa ñu jóge mm. ak fi ñu ñëw nii. Mm. yàlla xam na ne du benn. dëgg la kon góor góorlu bu baax a baax nga xippi say bët. incha xool ay tàccu yàlla nag dafa yombul waaye bu la yàlla tàccoo profitool fecc xale bi ma gis xam naa ne jar bu baax nag incha allah jërëjëf ok sa njaay waaw si yaa gi toog de waaw maa ngi toog de gone yi de ñu ngi ci seen biir yi rek yaa ma gën a xam waaw xam nga ñoom ñaar yi suñu xewlee yu mel nii mm-hmm. dañuy woo seen xarit yi dafay baax ñu daje ci seen biir daf seeni i foo seen i bànnaax daal. wallaay sëñ Ndiaye li nga def nii jafe ci jamono tey jii de. jërëjëf si. bu la neexoon nga ne suñ doole bëriwut. Mhm. bu seex ñëwee ci sa kër gi nga dàq ko ca biti. Mhm. te bu boobaa du mujj fenn. dëgg la si waaye xam nga tey àdduna amul solo. Mhm. ndax am-am du dara. nit jërul xeeb. parce que am am fu ne la koy yàlla di dugal. ndax tey ni mu ñëwee mën naa ñëwee noonu ci yéen ëllëg. wallaay wallaay sama jarbaat bu jigéen bi yor yor bu rafet rek laa soxla ci yéen du leneen. bu soobee yàlla. wallaahi li ñu ji nii mhm. da nga xam ne defante nga kook ay gor dëgg la bu soobee yàlla lu ci seex mën ak li ma ci mën yëpp mhm. danañ ko jéem bu soobee yàlla ba doo ci am lu la naqari dëgg la si man kay sama xel dal na parce que bi ma la gisee ngay waajuram te it xale bu góor bi nekk ku baax sama xel dal na ci bu baax a baax a baax may ñaan rek sëy bii mhm. yal na ci yàlla def barke amiin waay yàlla may leen njaboot bu barke amiin ba ñëpp xecc amiin si yàlla mën na loolu sa kàddu rafet na te yor bu rafet daal lañ leen laaj yaakaar naa ne ku am diine la. yor bu rafet daal lañ leen laaj te xam naa ne sama xel dal na ci bu baax ah, alhamdulilah kontaan naa torop nag jërëjëf yal nañ ci yàlla may ay turandoo yu baax a baax a baax amin amin noonu lay demee sax <laughs> nga am ci turandoo mu am ci turandoo ndax xaj nañ ci <laughs> alhamdulilah xaj nañ ci macha allah alhamdulilah jërëjëf jërëjëf si ni mbëggeelu endo moo ma a jóg mbëggeelu caaxaan man taxuma jóg naa dem si waajur ma wax ak ñoom ñu may ma la man bëgg na la forever my love mbëggeel gi bi ne ci man my love manuma ko ko crazy. Lying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 77 046 96 23 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. Sénégal lu ngeen jàppoon bàyyi leen ko. waaw kañ te jox ma nopp déglul lu bees tàq yegg si fii ci diwaanu Sénégal ak li ko wa Amidi cosmétique et oui indi leen ay produit cosmétique yoo xamante ni lépp si à base de plantes naturelles 100 pour cent bio ay produits yoo xam ni ci gàncax wi lañ koy dal di jëlee defar ko ba mu mucc ayib ngir fàcc li nga xamante nii moom moo nekk seeni jàngoro bu fekkee da ngeen a soxla ay soins capillaires pour karaw wala ngeen bëgg unifier seen teint ngeen soxla ay démêlants naturels pour li nga xamante ni moom moo nekk seeni karaw bopp di yokk seeni karaw wala ngeen bëgg a jox éclat li moom moo nekk seen yaram Amidi cosmétique indi leen ay produits yoo xamante ne ni c'est cent pour cent naturel yemuñu foofu produits yi nga xamante ne ni dañu leen ko daal di indil dafa daal di nekk ay produits yu baax ci li nga xamante ne moom moo nekk les douleurs articulaires et oui bu ngeen soxla ay huile ngeen soxla ay huile de baobab ngeen soxla ay huile de touloukour ay huile de moringa yemuñu foofu waa Amidi cosmétique indil leen ay beurre de karité cent ay soins de beauté poudre de moringue soins de beauté poudre de baobab et oui ak waa Amidi cosmétique da ngay faju ak lan li nga xamante ni moom moo nekk naturel et oui ak waa Amidi cosmétique coono dafa dal di jeex boo ci bëggee am lu la leer jokkool ak ñun ci 78 301 94 07 email amédi cosmétique botanique arobase gmail point com et oui vous pouvez également nous suivre dans les réseaux sociaux Instagram amédi point cosmétique botanique ou sur Facebook à midi ma ni jigéenu Sénégal moo xam nga nekk teint clair wala nga nekk teint noir wala teint boo munti am jokkool ak waa Amidi cosmétique lépp lu am ci xeetu jàngoo ñun ñooy ñi ciy indil saafara ma ne waa Amidi cosmétique ak jigéenu Sénégal ma mi ko doon liggéey taxawal borom tool ñëw na déco en or di entreprise bu bees tàq bu ñëw ngir jàppale leen ci seen wàllu décoration intérieure waaye itam di jaay ay meuble ak lépp luy décoration intérieure moo xam yow mi soxla papier peint table à manger chambre à coucher abat-jour sur pied lampe de chevet tapis de salon tapis chambre à coucher tapis de couloir tapis de toilette descente de lit lustre tableau de décoration console d'entrée rideau triangle rideau extensible horloge murale 3D, vase incassable, vase sur pied, coussin, miroir décoratif, chariot de service, pédale de rose, meuble clé, vase composé, drap, couette, table de coin, matelas gonflable, matelas orthopédique ak oreiller orthopédique lépp loo soxla ci sa wàllu décoration moo xam lu yanjël sa biir néeg sa salon ba ci sa biir kër boo ñëwee fii nga xamante ni moo di déco en or di ko fi fekk woo ñu gaaw ci 77 680 22 26 77 680 vingt 26 a déco en or seen njàqare si wàllum décoration jeex na tàkk